benn place ñu dem eh tali benn benn place. Eh, ah, ma am fii ci arrêt bi. fii daal comme ça liggéey bi moom wax dëgg yàlla kenn ku ne boo xëyee yàlla dana la eh, eh, jox li sa wërsëg. métti na ma ba kanam yàlla ku ñu ci mën a dimbali daal ñu jël. moom lu lu lu ama am solo li ngeen def nii la ndax saret yi ñun ñëpp ñoo ci ci su ci suba rek maa ngi koy wax taxi bi ma jëloon. Mm. dama ne leen lii dafa doy waar ndax luñ mat a seetaat la it nag mm. ndax boo nekkee cib dëkk ñu yaatal la fa. Euh, may la nga am loo suturloo Sëñ Tuubaa xajoo na ku nek borom sare di ñu wara sétal seen bop fa da da damay xëy di gont ah am ah, na doole téye mbaa moom waaye ginnaaw ko mëna a kii téye. benn place ñu dem eh talib bi benn place. ah ya gina ci de. Ah. ah. ñaata ngay verser fan. man ah, lu ma am rek. ah liggéey ma yëmut fenn rek. day am par bis. Eh, dem la verser. dem 5000 5000 ah mille yëmut fenn ndax borom mbaam mi li wër sagam lay am borom bu réer bi li wër sagam lay am. lo am manam yeen saa nga am ñet témer ñen témer fu mu toll. ah ko li fer mom ay sa ma nga am 4000 moom wala nga am 3000. wax deug yalla kenn ku ne bo xey yalla dañ lay eh, eh, jox li sa wër wërsëg mais nak wër wërsëg yo am nga yëmul fenn. ku xamni nak ginaaw ñepp ma sa nan ci ni mënu ñoo ñak ci dëkk bi. tay def nañu fe lo xamni ni dañ ñoo wan ne ñom dañoo am sañ-sañ ci dëkk bi ba kenn sañul kenn sañul ci ñom lenn da saret ku ne xam ne ne amatu fasla wax deug yalla fas la borom bakkan la liñ koy tek attanu ko ndax ñom ñoñu ku len takkon tek len ko duñ dem ñu jël borom bakkan tek ko lolu war nañ ko bu baaxa baax. ku bax ki muy Cheikh Cheikh Sidi Makhtar mu xamle ko ni saret nako ay responsable yor ngir accident yi ci am mana a ko bu baax. da melni ne del ni mom borom saret yi daanaka mom kaw yon ñom dañ ci xëccoog ore yi te leen ñun la topal fi ak sa ore bi nga yor baaxut ak yoy abrim la a ah, saret momewul teli yow lolou deug la wala deug deuk bi deuk bi yermande la seigne touba ñu jaboote ñun ñep kon nañ fi dawal yermande na leen li dafa doy war ndax luñu mata setat la yit nak ndax bo nekk ci deuk ñu yaatal la fa euh, may la nga am lo sutur ndax seigne touba xajoo na ku nekk borom sare di ñoo wara setat seen bop oto yi moom ak borom sare mom ñaare daanaka duñ jubo ndax borom auto bokoy romb day melne dalay da ci tele bi waaw nuy tam bu leen di romb bu le yoonu suufa day melne leen di siis ci yoonu suuf bi ma oto yi laa leen seex ñu ngi xiis di wat ci jamm mu melni lañ leen doole yaatal daal te jox leen yërmande bu baax ndax dëkk bi moom lépp dafay nekk te ñoom tam nag wax dëgg yàlla nuy moytu bu baax a baax oto yi ak ak yenn yi daal. sareet di seen taxawaay ci dëkk bi baax na trop parce que seen seen jumtukaay pour dem bi dana yomb ndax cinquante franc la fu ñu bëgg a dem ci dëkk bi tamit danañ ci mën a dugg. maam ñàkk yërmande rek ne kenn ku ne da nga war a am euh, maanaam da nga sarak kii boo ko wala nga comme sa jarbaat am na ci yooyu doo ko dawal seen diggante daal xëy na transport moom bu saret bi ak bu oto bi ñooyam waaw xam nga comme bu dee xale yi xaay ay xale yi ay 12 ans la jàpp ay 13 ans léeg am na ci mbaam yi day am am doole du ko mën a téye xale bu ndaw boo xam ne ci jàng alxuraan la toll wala école ñu jël saret jox la wala saretu mbaam da nga xale bu ciy dàq fas wala saret ba mu yàgg cëppeelu wàcc di ko karte lépp seenu néew doole la surtout xale yu ndaw yi nga xam ne moom ñoom la ñuy jox sareet yi te mesure guñ moom ñooñ dañ ko war a bàyyi sareet da nga koy jox magum jëmm waaye xale yu ndaw yi nga xam ne dañoo toll ci jàng surtout sareeti mbaam yi di leen jox ñuy dawal bu nu wàccee ñu leen jox ay 500 ki mille francs loolu tax na sax nangootunoo jàng maanaam ñooñu tamit seen parents yi seen baay maanaam maa am na ci responsable bu rëy am na ci gone yu muus nag moom yooyu seen mbaam dana tëb ba kaw sax waaye teewut day wàccaat xale yi xale yi te itam xale yu ndaw yi sëñ Mor xale yu ndaw yi ñuy jox sareet yi loolu la ñu war a euh, seetaat daal ndax xool xale boo xamante ni ci jàng la toll nga jox ko ab sareet muy dawal loolu wóorut. man euh, sareet boo xale bu ndaw bi yor man du ma ci dugg. wax naan dëgg ni ay xale ñu ngi ci xale nag li ci ëpp am na benn âge boobu bu fa tolloo dafa war a jàngi. ak gone yu ndaw yi nga xam ne ñoom lañ koy jox ñu ciy gaañ nit ñi di ci gaañ. mos naa xoos oto waaye dafa ma baal. alxuraanul karim balaa borom saret bee wax sax client yi ci boppam ñooy njëkk a taxaw ñaan ngir yàlla ak jëmmi dëkk bi ñuy bàyyi. non léeg-léeg xam nga léeg-léeg moom euh, problème amee noo xaay ni moom jéggal ko dong la ñuy wax mais léeg-léeg da nga gis ku laal oto jàmbur xoos ko wala mu toj foo ba waaye wax dëgg yàlla du liggéey njëgu foo. léegi sax bu ñu yàqee oto wala ñu yàq dara bu dee bokk nga ci organisation wala nga bokk cib garas da ngay répliquer dellusiwaat ci garas bi ñoom ñu dem seet waxtaane ba juboo soit léeg-léeg ñu nga yàq dara ñu yóbbu la police ñu woo sa chef de gare wala ñu woo ci fédération bi ñu ñëw lijjanti loolu léeg-léeg ñu yàq yëfi jàmbur fay ko mais nag du caaginte sari rek bis bi set ñooy yàq oto yaa ngi yàq sari di te mujjul fenn dama la ci jox benn firnde dama dama ñëw ba si rond-point bii ma ñëw stoppé taxaw benn kalanu daw dal sama kaw ba pare léegi kii ba toj verre ba toj mu damay fay ba dama ko mujj fay dañ lay mbëkk fee ku ci yoonam nekkul ñëw di wax naan baal leen jéggal ko quoi parce que dëkku Serigne Touba dañoo war a am yërmande nangam naam te duñ fekkee wax ji duñ xam nu mu mais fi ñu toll oto yi kuur yi ci oto yi la ëpp. ñoom ñooy génn kuur ñoom ñoo lay mbëkk yàqale ba pare dóor la wala ñuy woo ba seen morom saret ñu ngi karkar la dóor la ay xiir ñoom koy ñooy dóore fi mu toll nii moom. xeex moom dépassé nañ ko ñun jëlee nañ ko ci suñu bopp. léegi tamit ñu mbëkk la te doo mën a wax dara parce que liñ lay yàqal du am solo doo mën a taxaw di kii da ngay mën a obligé muñ dem amna sama benn waay bu ne fii boo xam ne saret la yor oto daw ba dal ci gud ci kawam gudi. ba pare wëlbatiku ni leen xaar leen ma dabali leen fas wa ñu defee ni la wax dëgg la mu départ jaare fa dem wala ñun ñoo leen di ñoom ñooy yàqal wala ñun ñoo leen di yàqal saret yi kay sëñ bi saret ay yàq oto saret weñ kese waaw amul leen luy toj waaw yenn saa moom dañuy yàqal moom ndax fi mu dañuy kaw bi ñu bëgg dem duñ dem duñ def dara na ba ci kanam ku ñu ci dimbali ñu jël ñu wutaloon ñun yoon yu ñuy jaar mooy li gën ci ñun moo gën ci fas yi moo gën ci sunub liggéey c'est-à-dire yoon ñi ñuy wutal nag nan ko dendale ak yoon yi ñu doon daw ba nga xam ne du caché sunu rythme liggéey loolu daal ñu ngi koy ñaan buñ ko amee mënu gën a. metti na ma ba ci kanam yàlla ku ñu ci mën a dimbale